journée merci la euh, journée merci nag euh, ak cant la rek goo xamante ni damay woote bis bu mag Thiès tudde ko journée culturelle Darmanko une fois que bu tapez sur YouTube mbaa Google mhm. di gis ni journée culturelle manque boobu journée bu mag la boo xam ne c'est l'international moo di ko woote foofu sa Thiès daan ko defee foofu ca place de France ren nag laa ko tuuxal indi ko si deux voies muy bis bu yaatu boo xamante Euh, su paree damay ñëw fii jël euh, tuddee def benn bés tuddee ko journée merci donc merci bit euh, gis ngeen ko sànq dañ ciy joxe ay cadeau daf ci ay cant voilà donc les salles bi toog waxtaan mbégte en famille retrouvailles sant rek loola waral loolu li waral loolu mooy <coughs> man jëf lu mu toll ci man lu mu ndaw day rëy loolu ci man yow mi may posé question yaay fii ci Bawal fii ci Bawal bokk nga si ñi ma njëkk jox fii micro si je me trompe pas c'est vers de l'autre côté nga dalal ma fi ginnaaw loolu Boy Ndiaye ci Bawal Média dalal ma loolu du yà du tey yàgg na waaye man jëf lu mu toll ci man day rëy loolu ci man te man lu ma waaye jëfal dama la koy delloo du ma fàtte man euh, Boy Ndiaye nag mooy li ma wax fii sànq Boy Ndiaye boo koy dégg tey jii muy Boy Ndiaye i rajo Boy Ndiaye nangam ak nangam booy njaay maa ko taal ci ni ma wax sànq ca mm-hmm. jéemul la woon loolu nag yàgg na booy njaay sama waay la euh, li ma delloo rek laa ko laa ko ko jox euh, jëlaat ñeneen ñoo xam ne wax naa ko fi sànq fii ci bawal yëf bi fii la amee ah man Thiès laa juddoo man je suis né a Thiès falaa juddoo falaa yoroo falaa defee lépp man may dàkkanteele borom cees waaye nationalité fii laa ko defee fii ci tubaa damaa jël samay kii rek yecca dem ak ñëw amee ko fii ci tubaa léegi nag su may remercier wala may jox yenn kado yi dëgg la naam dama koy jox ñama bokkal ci journée culturelle de Darmanko dan ma si jàppale waaye tamit am na ñu nekk fii ci Bawal di si jàpp Boy Ndiaye moom da ci taxaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen chaque jour saa yi buy am vendredi lay am ndax mooy feetu kii waaye man bi ma koy def fii xam naa ne ñoom ñuy xat la ñu doon xam naa ni duñ wuy ji kenn ndax bari na lu ñuy tëkkee fi mu nekk booy xool li gën a yomb jamono ji mooy am maire fi mu loo am am maire fi mu nekk nii loo am am maire waaye damaa xool ca fan fenn xate fa nga xamante ne ñoo ngay tëj seen campagne nangam man nangam ko ci riis xam ni lii may woote nii du dërëm moo tax ma koy woote ndax lii nii amul kenn koo xamante ne yëkkati na ci dërëm jox ma ko wala nang borom Cees ak projet borom Cees ak yu demee noonu borom Cees ak élection yi laa bëgg a wax d'abord borom Cees ak élection yi muy Cees muy mbakke muy feneen ak feneen bu leen jàpp ni Thiès laa juddoo rek fa laa yore nit wala nangam li doon na ma ko waxee woon gis nga fii Thiès mbaa xam moo xam cees moo xam Mbàkke moo xam fu mu a doon ku fi doon dara ku fi doon dara moo xam ku di laaj ma ña fa nekk Thiès gée ay maire wala nangam dafa fu ma jaar ak ñoom kon fii muy Mbàkke muy feneen fu mu mën a doon koo dégg ñu ni fal nañ ko maire dama caa am lu ma ca doon dama caa am lu ma ci représenté man du ma man ku ma àndal nga am ndam loo xam nga course gi li ma daan gis mooy bu ne des na 28 jours woon pour xool ci boo jaay mas na ma posé question bu mel noonu 28 <laughs> jours léegi nag li nga xamante ni moom laa war a wax ba war koo wax mooy li ma leen wax man Thiès laay voté su ma jógee fii Thiès laa jëm directement fa laay voté waaye képp koo xamante ni dégg ngeen ni monsieur le maire de la ville de Thiès Talla Sylla la woon ba léegi du neen waaye fi mu nekk nag il est temps ma xool nan laak naka la ma xool nan laak naka xam nga nag samay mbir ay code la samay mbir sob ay code la de faaw nga jéem koo décoder soo ko décoder nag yaay xool nan la nan nga ko war a décoder yu demee noonu waaye en tout cas daal ku ma yëg ma yëg la ku ma jox benn ma jox la ñaar waaw loolu daal laa bëggoon nga nga xam ko maire de la ville de Thiès dama ko jàppale woon taala am fu ma jaar ak moom ci zaahir ak ci baatin waaye nag fi mu nekk moment bii il est temps ma xool nan la ak naka la ay code la faaw nga décoder ko waaw man defuma ko digluwuma ko ko def <laughs> takkuma suuf digluwuma samay taalib ñu takku suuf ci biir interview la sa benn waaye kopas ni la laaj ko ci nangam ak nangam yu demee noonu waaye man takkuma suuf digluwuma ko ko def en tout cas loolu laa mën a wax ci question boobu waaye lu mu a doon dëgg la dama am i taalibe am ñu yaakaar ci man ndax sama bàyyi sëñ Tuubaa ko seexal ma am ñu yaakaar ci man li may li may jàngale daal mooy li ku tedd ki sëriñ Touba bëgg waaw man ci loolu laa nekk takkuma suuf digluwuma ko. waaw xam nga réseaux sociaux mooy li ma waxoon xale yi rek man dama dul man fi nekk nii sama wax ji bi ma ko waxee ba pare ba ma ko waxee nii ba pare ne une bonne fois du dem di xool ay commentaire waaw dama lire commentaire wala di xool déedéet réseaux sociaux bi la ma ko waxoon loola yàgg na dama ni na nit ñi maytundi ko bu baax a baax a baax a baax YouTube na nit ñi ko bu baax internet parce que internet dëgg la lu baax nga ca ndax yéen fi nekk nii tey jii muy eh, yéen ñi di presse rek muy Sénégal siiwal nangam yi fi nekk nii rek tey jii bariwaan na yooyu dégg yéen a ko jàllale kon xam nga loolu lu baax la kenn werantewu ko waaye li nga xam ni daal mënu ma ko comprendre mënu ma ko comprendre mooy dem di xool ji lu bon ca internet te lu baax nekk ca comme ku bëgg a xool lu baax da nga koy xool ku bëgg a xool lu bon xool lu bon waaye daal su ma soñoon daal ñu wàññi ko bu baax a baax a baax daf ci très attention